vidé titre yi tàmbale koog la tribune ginnaaw ba nga nuyoo sa mbokk mool yi ba voilà mu nuyu sama mbokk mool yi rawatina ñu nekk Guinée Conakry nañ leen jëli ji fu mu nekk nag yittewoo nañu lool ku leen jëli ji 3 millions gaal gu ne nappkat yi xam nañ ne amuñu ko te géej gi si boppam fu dëgg neex dafa kaaya kaaya sax géej gu kaaya moo tax ñu dem ba Guinée Conakry di napp ji lu ñu xamul kon nag nañ leen jàppale bu baax suñu mbokk yi nappkat yi nuyu nag képp ku nga xam ne yaa ñuy teewlu Euh, jamono ji Yacine ni nga ko waxee dañu koy tàmbalee yéen a kaay groupe D-Média la tribune dafa ñëw ci li nga xam ne moom Mamadou Fofana Birame moom lañ doon wax sànq di société civile bi nga xam ne dañoo euh, taxawee euh, euh, taxawaayu ndey ji seex maanaam woote jàmm ñoom la ñuy def fu mu nekk nii ndax dañoo gis ne réew mi jamono ji xal la bu gëmm il suffit de peu rek nga gis mu daal di nag xal bi daal di gimmi te nag lu nekk xaj na si te réew mi benn bopp la kenn mënu koo xam ñaar société civile bi ne législative yi ñu dëgmal nii conseil constitutionnel bi nañu xoolaat seen ak doxalin nañu doxale na nga xam ne nii jàmm daal moo say jiitu ndax fu nekk moom ñoom la ñuy woote di mu Njaay Siise ñoom ba Boubacar Ba Birahim Seck ñoom ñëpp daal jàpp jàppale bi ñu euh, defee seenam ndaje dañoo jàpp ni nañu def seen kéem mu nekk ay élection yu nga xam ne nii euh, képp ku ci war a bokk nañ ci bokk te nag nañu conseil constitutionnel bi suñu juróom-ñaari maam yooyu nañu jël décision bu nga xam ne nii wala avis ñuy joxe avis boo xam ne nii dana tax euh, géej gi du débordé bal du tàkk sagar du xeeñ fii ci réewum Sénégal ñu jàpp ci yeewi askan wi yéenekaay bi tribune dafa ñëw ci yeewi askan wi jamono jii de dafa mel ni yeeweetuñu kenn ndax ñoom seen biir ñooy yeeweeku euh, kenn yeewiwu leen nag fu nekk ñoom ñooy yeewi seen seen bopp ndax nag yeewi askan wi li ko taxoon jóg mooy nee nañu askan wi dañoo sonn te président Macky Sall daf leen a tënk ñu fës ne woon yeewi askan waaye fu mu nekk ñoom ñooy yeewi seen bopp ndax bëri na si ñu nga xam ne yeeweeku nañu euh, ba démissionné euh, jamono ji xuloo beex tamante ndëmb bi bari na ci lool dénonciation bi ñu bëri ñu ngay joxoñ baaraam kii di Khalifa Babacar Sall Ousmane Ousmane Sonko euh, euh, kii di Barthélémy Dias kenn déggatu ko mu wax xëj na mi nga ca liggéey ba barki démb Ndiaye Babacar Diop ma sa benn dëkk ñaari gaar euh, joxoñ na baaraam kii di Ousmane Sonko Khalifa Sall kon nag nee nañu yeewi askan wi fu mu nekk nii daal nekkatul la woon ñu ngay yeeweeku seen biir cérémonie de passation de service Marie Xemes Ndiaye moom nag ak kii di Mame Ndiéré Abdoulaye Diouf Sarr joxonte nañ leen ngay ni ki démb Marie Xemes Ngom Ndiaye yëkkati na ay kàddu yu daw yaram ay jooy sax ay rongoñ euh, tuuru na fa te nag nee na neexul ba neex bilan gu Abdoulaye Diouf kenn moom ci boppam Marie Khemesse kenn mënu ko cee génn. Hmm. bu fekkee bilan ba dafa négatif moom ca la bokk bu positifee sa la bokk euh, bu toogul jonkanul moom it sa la bokk moom Marie Khemesse nangu na ne moom mi ñu def tey ministre de la santé. bilan euh, Abdoulaye Diouf Sarr boobee am na ca wàll am na sa pourcentage. waaw d' accord na loolu. ñu jëm ci trafic li nga xam ne mooy visa passeport kilifa. ak ña nga xam ne ñoom la ñu tegandoo loxo dinañ leen àtte juróom-ñaari fan ci weerub euh, juillet kon nag euh, foofu la ñu toll. Pikine Ouest investiture yi ci biir APR jur na coow ni mu ko juree ci gox yi bari ci kanam tuuti di ngeen gis tëngee tamit waa Benno Bokk Yaakaar seen investiture yi jur na fa coow lu sakkan dinañ ci ñëwaat El si loo ne lépp jàmm. alhamdulilah alhamdulilah maa embouteillage yi téew la comme man. poussière moo ma téye poussière. ah poussière wax bokk na si li ma téye tamit. jaas naa maa ngi ziar bu baax a baax. nu ma la ne. waaw ah, tubaarkalla mu ñëwee loolu laa ko wax ne naa ko da ngaa sañ. poussière boo solee lu weex day kile. day xal voilà ayca ah, Walf Quotidien dafa ñëw ci dund gu mett gi tolluwaay réew mi waaye it askan ah. wi mënuñoo mënees lañuy wax ne jamono ji nañuy dundee jéggi na lool ñëw nag dooleeg ci tool politique. mu mel ni kon nag réew mi fu mu nekk nii daal kosati rek mu tàkk gis nañ li mu turee ni mu yëkkatee loxo yi ci biir euh, yéenekaay bi voyage ba nga xam ne euh, président Macky Sall euh, jot na ko amal waaye it facture laitier yi nga xam ne 36 milliards lañu ko xayma passation de service bi yéenekaay bi ñëw na si bu Marie-Khemesse Ngom Ndiaye ak nag Abdoulaye Diouf moom nangu na ne wax fa dëgg neex yàlla bilan bi nga xam ne moom moo moom am na sa part de responsabilité bu bu bu rëy kon nag wax fa dëgg neex am lu ñu ci génne boppam. Euh, vox populi nag dafa ñëw ci suñu police bi nga xam ne fu mu nekk nii neexul ba neex ñu def nañu liggéey bu am solo ci ñàkkum kaaraange gi ci réew mi lu ñu leen mën a waxal mën nañ wax ne police mu ngi liggéey liggéeyam ndax nag def nañu le point nee nañu nag li nga xam ne mooy ñàkkum kaaraange gi dafa wàññeeku waaye nag infraction yi def nañ bilan bi euh, euh, cinq cent 1510 cas diggante 2021 nga gis kon nag 2020 yi nga amoon 1221 Euh, kon nag euh, def nañu xayma gi loolee ni ki ni ni ni ki démb zone inondable yi jàppale ne kon taw mi dikk na ba noppi yëmbal Kër ma Massar soo moytul ren jii ndox mi dana leen sonalaat lool en tout cas lu mu ci manti doon yéenekaay bi euh, ñëw na si le témoin ñëw ci liggéeyu takkader yi di police ak sécurité bi 2021 mënees nañu wax ne Samba Boy yi fu mu nekk nii ñoom ci boppam takkadeer yi defante nañu ñox ñoom ba am nañu sa ndam donc ñoom takkader yi liggéey bu am solo la ñu def euh, te yéenekaay bi euh, euh, dikk na ci yenekaay bi di Sud Quotidien ci loolee sax la ñëw les chiffres 2021 de la police 22 422 infractions constatées donc ci manees nañu wax ne li ñu jot a teg infractions yi ñu xayma mi ngi toll ci 22 422 lu tollu ci 15 189 ci ay doomu aadama ñu defeere leen Euh, mille cinq cent euh, euh, dix yu nga xam ne ni mbirum internet tax lu ni xeetoo la waaye nag wàllum drogue si sinébar si xam nga ne dañ doon wax ne kon chanvre indien bi dafa xaw a manqué ndax rebelle ya ko doon bay teg nañ ñu si bari nag daw nañu ndax Salif Sadio ñu ngi leen di wër ba léegi fu mu nekk nag yàmbaa ji tamit noonu lañ koy wëree ci réew mi waaye ndekete yooyu yàmbaa ji luñ koy wër wër wër boo demee Thiès fekk ko fa du samay kàddu nag hmm. du samay kàddu de Simon Faye <laughs> sama yoon nekku si du samay kàddu yéen kaay jël na raay bi nekk te yow. ba léegi jël benn raay bi. ay lii di ñaari <laughs> fa. ah yamba ak li mu def rafetul. dégg neex yàlla wax wax. bàyyi gox yëpp dem ba Thiès. simb kaani. ah parfois nga gis Simon ñëw dëpp veer yi baadu. toog na. parfois Simon ñëw ci rédaction bi dëpp veer yi mu ne baadu. wala jaawale daal yi. waaw mbay daal suñu boo waxee ne samay tànk day metti moom it baadu. baadu sol daal yenn saa yi du sol daal. baadu Simon gaari. yenn saa yi mu ñëw du sol daal Simon baadu. léegi nag moo jël raw gàddu. waa ñi lal basan nag waa ñi di lal basan tënk. waaw waaw. yaa ngi gisul. waxuma de. ah ma dama lal basang rek ah déet. non ñëpp fépp la ñuy lalee basang. léegi nee nañu Thiès. 929 euh, virgule 1 kilogramme. la nu gàddu di daw. sa Kolda 300 waaye nag après Thiès Kolda. dëkku Pape Kadiali Badji 377 Dakar doog a ñëw. yéen waa Dakar ndekete Birane Touré mu ñëw ne zëmm nii nekk ci plateau bi. salaam ñu foog ne concentration la ndekete yoo. wala non non waxuma El Hadj El Hadj Mbour la bokk. waaye léegi nag ba tey. ah gis nga yaa si dina joxe joxe ah, El Hadj. déedéet parfois El Hadj ñëw tàng nii bëri xanaa. campement ngeen wax deux cent. Mamadou Bopp na tànn ñëw di jugee ko. yéen waa Dakar yéen yéen a may déglu si ra si oto yi. ndekete daal yéen a jël troisième position yéen a yor médaille médaille bronze donc Thiès médaille d'or Kolda argent. Euh, euh, euh, Dakar yéen a jël li nga xam ne mooy <laughs> bronze bi ci wàllu tuxum yàmbaas waaw ñun nag ba dëgg doonte ñoo ngi ñu Dakar waa Tëngéej waaye ku ñu xam-xam na ñun ay yaaram la ñu ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy source a dafa ñëw ci société civile bi ba tey looloo ca na a fës waaye nag ñu ngay woote woote ak jàmm fu mu nekk nii dañu bëgg lépp ñu sotti si ndox mu sedd rek ñu amal ay élection yu nga xam ne nii képp ku ci war a bokk dañ ci bokk man nag li ma jaaxal moo di bu fekkee dañu bàyyi ñëpp dañu bàyyi ñee bokk ñi nga xam ne ñoom lañu ñu wax ne ñoom ñoo def erreur nañu fa bàyyi ñeneen Fadel Barro li sëm mi ngi toog di xaar Serigne Serigne Boub li sëm mi ngi toog di xaar Bougane Gueye Dany li sëm mi ngi toog di xaar kon nañu bàyyi ñëpp ñu demanoo ci élection yi euh, euh, boobaa parrainage bi amatul sens loolu yëpp wax fa dëgg neexee amatul sens wooteeg jàmm daal la ñu def ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom société civile bi ñàkkum kaaraange gi ci euh, réew mi jàppale ne le quotidien ñëw na ci euh, mu mel ni euh, le ministre Sidiki Kaba ministre des forces armées nee nañ def nañ ci liggéey bu am solo ndax naka démb ci suba mi ngi woon sa Xosanto jot na fa inauguré benn poste de gendarmerie brigade mu demaat ci ngoon gi sa Fongole mi foofu la dem amalaat fa beneen inauguration te nag nee na day wéy fu mu nekk nii ndax nag wàllum kaaraange gi rawatina ci frontières yi dañ ci def liggéey bu am solo moom euh, Sidiki Kaba forces armées ñu ñëw ci Abdoulaye Diouf saar Marie Khemesse joxante nañu lenge yi euh, ngir nag wax fa dëgg neex yàlla liggéey bi daal di euh, door ñu ut ak saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku ci kër docteur libération dafa ñëw ci mbirum astu soxna ndekk te relancé waat nañu ko gars yi dañ foogoon ne atte woon nañu ba mbir yi jeex waaye nag euh, boroom këram ak yaayam moom euh, astu euh, soxna nee nañu dugal nañu beneen plainte bu nga xam ne nii dañu ci wax non assistance à une personne en danger homicide volontaire faux usage de faux kon nag relancé waat nañu mbirum astu soxna ba nga xam ne ba muy am doom mm-hmm. dafay doxee ñàkk bakkenam li ma leen doon wax investiture yi ndekete yoo ci benn bokk yaakaar kenn ëpp leen ay problème rawatina foofee sa tëngéej ñu ngi jiital ci liste bi Ndiagne Diop ñëpp d'accord nañu ne peut-être ñoom nee nañ Ndiagne wax fa dëgg na yàlla bu ñu ko tànnee warees nañu ko tànn waaye nag bi ñu tànnee jaari jén bëri na ci ay jigéen yu nga xam ne nee nañ wax fa dëgg jaari jén turam rek amul mbooloo waaye moom nee na wax ñooñu di wax jëm dañuy ruube waaye coow li bari na si jigéen ñi nga xam ne euh, nee nañu euh, choix bi ñu def ci jaari jén war ñu ko fi woon def mu laay fa ñu ko dugal neexul ay nitam nee na wax fa dëgg neex yàlla gisuñu seen bopp Ismaïla Madior euh, Fall ak kii di xaritu euh, Yacine euh, euh, Omar Gueye ñoom kenn investisseur kenn dugalu leen fenn ñoom wax fa dëgg neex yàlla dugguñu fenn Seydou Diouf ak Souleymane Ndoye diplomate xaritu ñoom ñu ngi nekk dix-huitième ak trentième position ci national bi benn bokk yaakaar national bi moom problème wala kii bi suppléant yi. suppléant yi ci national kon ñoom ñoom seen liste baax national bi suppléant yi non problème. national ma ne ci liste nationale bi. Mm-hmm. suppléant yi moo am problème. c'est ça ok donc ñoom ba tey amul problème man nag loolu moom ma jaaxal suppléant bu bu euh, bu bu bu benn pàcc bi demee ba sa def xam nu muy demee noonu. Mhm. ñu ñëw ci euh, critique société civile pour euh, désamorcer la bombe électorale ndax nee nañu nag réew mi wax fa dëgg neex yàlla lu dul jàmm jàmm moo ko gën ay élection yu nga xam ne bëri coowee nii masul am législative yi nga xam ne yëg seeguñu fa coow li bari na ci la wooteeg fitna ku fi nekk di wooteeg manifestation war naa mën a ñàkk nag société civile bi nee nañu nañu def seen kéem kattan ngir ñu euh, euh, euh, conseil constitutionnel bi jël ay décision yu nga xam na nii dana tax réew mi bal du tàkk saga du xeeñ géej gi du débordé yeewi askan wi nag ak ñoom jamono ji nee nañu seen manifestation bi dañu ko fas yéene yóbbu li ñu njort ba le juin ba le 10 juin ba le 8 juin le 8 juin incha allah waaw manifestation bi voilà le juin ñu ngi en attendant nag ñuy def di ñu ngi des di di di xool ñu ñëw ci euh, yéenekaay bi nga xam ne di moo di enquête dafa ñëw ci euh, la république en otage ñu ko jël en otage Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar nee nañ fu mu nekk nii ñaari coalition yooyu ñoo jël réew mi en otage askan wi ci boppam ba du ñoo xëyte duñu wax Yewwi Askan Wi wala Benno Bokk Yaakaar te ñoom ñaar ñu comme ni ma koy faral di waxee boo leen yóbbu woon Douta Seck gi wala Grand Théâtre euh, ñoom politiciens yi ñu wooyee leaders yi du ñu ko waaye nag malheureusement réew réew mi politique moom 24 heures sur 24 la. Euh, loolu moom moo moo ñu sonal wax fa dëgg neex yàlla euh, <laughs> bëgguma si ñëwaat sax benn dëkk ñaari gaar euh, alerte si la ñëw nee nañu nag Thiès moo jël record bi ci tuxum yàmbaa gi du samay kàddu nag Birahim sekk Abdou Baara Dolli Mbàkke dañoo juum dañoo juum yaa ngi ko doon wax démb Birahim Touré ci jàngat bi ñu def ci xaalisuk adiya bu mbàkki yu fay un milliard bi nee dañoo juum bu ñu ko bëggee comparer xaalisu far Farba Ngom bi ak njuumte dafay am euh, donc Birahim Seck Abdou Bara Dolly Mbacké nañu xoolaat bu baax la ñuy wax ndax mbirum aadiya ku xam aadiya lan mooy aadiya ak koppar bi nañu koy dajalee doo ko comparer xaalisu ba Ngom bii euh, loolu nag wax fa dëgg neex yàlla nee nañu Birahim Seck ak Abdou Bara Dolly kon dañoo jub 24 heures ñëw na sa yeewi askan wi euh, dañu saisiraat préfet bi nee na dañoo jub aadiya bi moom dañ soo jub wax fa dëgg neex yàlla ñoom nag eh, yéenekaay bi loolu loolu la wax kon nag Yacine. aywa maam. ayca kon man 7h59. 59 minutes moo jot euh, Mamadou Fofana ba lundi jàmm. incha allah ba mardi. ou plutôt excusez-moi. Mm. mardi bu soobee yàlla incha allah. ñii jàll nag ci xibaar yi ànd si xaj moom su jot nga titre yi de. ñëw nañ ci technologie la ñu doree ci élection législative yi nga xamante ne bi société civile li ñu woote mooy wàllu dal ni ki itam fexe ba réew mi tegu ci wàllu jàmm lu mooy loolu itam euh, dinañu wax ci nawet bi euh, soogo dellu si euh, ak njombe ga mu defagul fële ci ranch de Doli lu mooy loolu itam wàllu assainissement ministre bi amal na ay tukki nemmeeku def na itam ay kàddu yu digee ñàkk kaaraange ci Sénégal police daal dinay euh, def njàmbarte euh, daal di dalal xel yi ci euh, ni nga xam ne noonu la ñàkk kaaraange delloo gannaaw ci Sénégal ci jéego yu am solo yi nga xam ne taxawee nañu ko démb la ñu doon def bilan ci kanamu way taskatu xibaar yi wàllu sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mbuub yéenekaay yi Mansoulaye Thioub Ndoye faram fàcce gi ak Mame Mbaye